mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk fii euh, dakarnet point com tey ma amoon mbégte ak contentement di dalal ndaanaan koo xam ne kenn dootu ko présenté la na nañ ne xale la mais yaakaar naa ne mi ngi ci yoon bi tey mi ngi bay waaram kooku mooy kan koo koy Fat Sow dañ koy jox kàddu yu mu nuyoo après ñu dikkal moom ci waxtaan Fat Sow ñu leen di di la ziar. waaw Abdou maa ngi lay fay di nuyu képp ku ñuy seetaan. di leen jaajëfal leneen nag seen doom moo nekk fi tey. Eh, kooku mooy Far Sow yaakaar naa ne nuyoo na mais li ñu koy njëkk a laaj mooy Far Sow euh, lan mooy sa début comme instant yii nii star mën jamono ji euh, neex na mais aussi tamit dinañ laaj tamit koo gis rek xam na ne am na début ñu laaj sa début nan la demee. waaw euh, Fatou moom mën naa ni début métti na méttiwul. Mhm. parce que xam nga rek comme que yoonu ndaw moom ne nañ du yomb. parce que dafa am jaar-jaar boo xamante ni dama fa jaar ak samay moroom mhm. voilà mën naa ni nag xëy na yoon la boo xam ne jaar naa fa pour xool est-ce que li ma bëgg mbaa li may jéem ndax mën naa ko continuer. Mhm. voilà mu nekk euh, Petit Gallé yaakaar naa ni ñu bari bari bari fa lañ ma xamee. Mhm. voilà fa laa tàmbalee fa laa commencé ba tey euh, ma am fit. commencé def musique. mais da nga doon jàng ko am ngay dem ah, seen petit gàlle boobu ngay wax. waaw damay jàng ba tey. Mhm. waaw Fatou moom. yaa ngi ni ba maa ngi jàng ba tey si mhm. candidate euh, au bac. Mhm. voilà jàng ba léegi. ndaxte damay def musique ainsi que damay continuer euh, di jàng tamit voilà ndax ci la ma fekk. ainsi que lépp lu ci war rek dama ko koy jox. Euh, ñu gis ne tamit nga nekk ndaw mais ban moment nga yaakaar ni que ni. man am na luy nelaw ci man faaw ma yee ko génn jox ko jox ko askan wi. waaw euh, am na moment boo xamante ni moom mën naa ne xëy na nit ñi ñoo ma may fit sax ba ma dem. Mhm. ba commencé di way. xam nga rek nit ki moom nee nañ fii moom jàmbaar amul ku ñu jàppale rek. moo am voilà teg euh, am na yenn yu bari yoo xam ne balaa nga koy def foog mu am koo xamante ni. moo lay may fit ba nga dem parce que yow kese rek sa fitu bopp yaakaar naa ni. Mhm. yenn saa yi da ngay naan est que baax na walla baaxul. Mhm. voilà donc nag euh, ci nekk xale di foo ak euh, yenn camarades de classe yi xam nga. Mhm. ci lañ ñoom ñoo la poussé quoi. voilà ñoo ma poussé à que ma am fit way ah, léegi ñu gis na comme ni nga ko waxee sànq ku la xam-xamee la ci ah, seen petit gàllé léegi ah, ñu leen laaj. après seen petit gàllé dañoo toog ay moment dégguñu la ñu laaj ci lan nga nekk. waaw euh, toog naa nag moment bu yàgg. kenn mhm. gisuma kenn dégguma mhm. parce que moment la boo xamante ne woon mën naa ne xëy na dañ doon liggéey ak moment boo xamante ne dañuy. Euh, tourné dañuy tu dañu dañuy gën a. Mhm. toog gën a xalaataat wala gën a gën a gën a préparé wu. Mhm. voilà looloo waral euh, moment boobu yëpp tamit. Mhm. Mhm. léegi ñu jékki-jékki gis la nga génn benn single ñu ne single boobu noonu euh, maanaam euh, ban label moo ko def seen petit gàlle da cee teg loxo comme prince art bi wala yaa dem ak sa moyen bopp. waaw ñaari single yëpp nag mën naa ni yàlla yàlla rek damay naan damay sant yàlla bu baax a baax. ci sama mën-mën ak ñi ma jàpp jot a jàppale. ba ma àgg fii ma mën a tourner benn bi di xaar beneen bi yàlla baax na lu yàlla wax rek ñu dem ci. waaw dëgg la tamit nga génne son xam mu neex trop nekk validé naa. Mhm. nekk son bu neex sax. léegi après da lay da lay bàyyi nga ñamal ci mbokk internet net point com yi xam nga ñamal leen ci tuuti rek après ñu di dikkaat ci waxtaan bi. dama ko tànkam lool ñàkk xam li mu waral bari na lool bari na lool. faj rek laa gëmoon mu jaraloon ma dudd luy bànneex bànneex bi suñu bët yi dajee ca laa barde xamatuma luy bànneex xamatuma luy bànneex ca laa barde valide naa validé na lu dul mbëggeel bëgguma validé na validé na lu dul mbëggeel bëgguma yaay sama afiyaay validé na validé na lu dul mbëggeel bëgguma yaa may mottale soo mu matul ba niree saa yu ma jooyee ndax ma may sa nenne valide na valide na lu dul mbëggeel bëgguma yaay sama afiyaay ah, macha allah ku gis loolu xam ni ah, talent mi ngi ci moom aussi tamit ah, baat bi neex na macha allah yan projet moo nekk sa sa kanam parce que yaakaar naa ne xale nga mu ngi ci jamono Covid bi comme ni ko sa moroom yi nekkoon seen pët gaal di ko defee di génn di def ay concert affaire yu est yooyu yaa ngi ci wala nu mu fa demee. waaw euh, am na yenn yu bare bare bari nag xam nga nee na lu jot rek yomb. Mhm. bu fekkee ni que bu ñu waree def concert. Mhm. bu ko laajee rek dañ ciy dem ndaxte musique ak li mu àndal musique euh, ak lépp lu muy laaj. Mhm. voilà. bu ñu demee ba desul lu dul concert fan si loolu la ñuy laaj dañ ciy dem ba mu neex. Mhm. waaye xam nga comme que début la. Mhm. dañuy door a commencer. Mhm. Euh, man dama nekk koo xamante ne su ma dee def. dinaa xool li ma mën xool loo xamante ni li may def. est-ce que war naa ko def. mais pas diw lay def lii rek. man tamit dama ci topp. parce que. bu fekkee ni que gis naa ni sama beneen moroom day def day def concert. Mhm. kon man tamit damay naan damay def concert. Mhm. est-ce que heure concert jot na. d'accord est-ce que concert boobu bu ma koy def. Mhm. dama koy def pour pour uje wala dama koy def pour lan. pour parce que ñi war a ñëw ci concert bi ñu ngi laaj concert. voilà loolu moo tax. bu demee daal ba desul dul concert. Mm-hmm. incha allahu rabbi dinañ def concert. mais tamit ah, concert yi concert yi ci la ñuy gisee xale yi ci gisee ñoo xam ne kat kii nii tey jii ñu ngi koy gis mu ngi yëngu ci xam nga di koy yëngal affaire yooyu noonu mais boo nee da ñëw toog sa ruku di xaar ay concert affaire yooyu noonu. est-ce ah, mun tamit mën nañoo jàpp ne ba xam ah, ñu ne Sénégalais yi gisee ak sa talent ak sa mën a way ba xam nañ ko gis ci yow. waaw xam nga dañu naan dafa am moment boo xam da ngay natt sa bopp. Mm-hmm. am na moment boo xamante ni nit ñi ñoo koy laaj mais xam nga duma mën su ma naree ne toog de damay toog di toog di toog benn fan su du jógee fee ne ma e kaay ñëw def concert mm-hmm. mais damay xool bu fekkee ni que comme tey dem na ba heure boo xamante ni fan yi ñoom bëgg nañ li may def mm-hmm. donc moment boobu muy concert mm-hmm. di soirée di leneen lu mu ci mënti doon même bu dee dîner de gala sax ma defal leen ko loolu la mais xam nga daal li ñu naan daal nañ dem nañu xool nañ ba ci kanam. waaw ah, di ko gars yi di waxee ay yoon ndaw du gaaw quoi. Ah, du gaaw loolu bëgg a wax. aussi ñu gis tamit sa clip bi macha allah jaar na yoon aussi neex na ñu leen laaj ba xam yow euh, ñi nekk seen dëkk Podor fa nga ko liggéeyee wala fii Dakar ko liggéeyee. waaw euh, clip bi dama ko déparé sama sama dëkk Podor laa ko turne mu nekk loo xamante ni dama ko def parce que dama def dama ko def ak sama mën-mën. Mm-hmm. dew ma àbbi leneen. sa moyen boobu quoi nga ko defee sama dëkk. Mm-hmm. samay nit. Mm-hmm. dem na ba ci personnage yi. lépp ci ci ay ay waa Podor lañ top modèle yépp ay waa Podor lañ. Euh, ki ko produire waa Podor la. Podor. voilà. parce que dama nekk koo xamante ni man dama bëgg sama bopp. Mhm. dama bëgg samay mbokk. Mhm. donc comme bu ma waree dem bu ma waree départ bëgg naa di de départ ak samay ak samay nit. Mhm. ak samay mbokk ñi nga xam ne ñoo may jàppale. looloo waral lépp li ma tourné ma tourné ko foofu noonu. ah daal mën nañu jàpp ne ñoom daal jàpp nañ ci combat bi quoi. bu ñu jàpp nañ ci bu baax a baax. ok mhm. mais est tamit fii euh, dakaar mhm. est ce am nga fi ñoo xam ne tey jii boo fi ñëwee ñoom dañ lay taxaw comme ça nga am ay concert yoo xam ne fii Dakar boo ko amee daal maanaam tey boo waree ñëw Dakar am benn programme boo fay def est ce que am na ñuy toog fii naan la noo defal lii wala kii. sama entourage euh, du ma ne yëpp. Mhm. mais majorité bi yëpp Podor la nekk. Mhm. Mhm. pour dire vrai majorité bi yëpp Podor lañ nekk parce que li naan dama tàmbali. commencé ak sama sama ay nit comme tey ñoom ñoo ma tette. ñoom dañoo jug rek ne sa sama ne seen doom. comme que lii la bëgg ñoom dañuy ànd ak moom. raison pour laquelle entourage bi yëpp ay waa Podor lañ. mais euh, des fois tamit Dakar fii tamit war nga fay mën a ñëw xam nga même boo ci def benn kii sax nga def ko nit ñi euh, xam ni kat euh, Fatou mu ngi ci talent bi ba léegi way bi mu ngi ci moom mais boo jëlee sa yëpp def ko Podor mun naa ne affaire boo ko yemalee Podor rek est-ce que maam est-ce demee ni mu war a demee. non mënul mënul demee ni mu war a demee sax. Mhm. boo gisee lépp de nekk Podor. Mhm. c'est parce que rek Podor mooy sama départ raison pour la laquelle bi gën bi njëkk. ma commencé ko Podor. Mhm. mais incha allah bu neexee yàlla xam nañ ni ko lépp du yem Podor bu ñuy ci li ñuy ñaan bokk. Mhm. lépp du yem Podor. Mhm. bu ñu sañoon bu demee bay bay bay bay développé. bay jëm kanam ñu dem xool feneen. mais boo gisee rek lépp ñu commencé ko Podor parce que Podor laa bokk. d'accord loolu moo tax. ñu gisoon euh, seen petit gàllé euh, tataangoo rek yaakaar naa mooy tete xale yi ba léegi instant yii mën nañu sax. am na ci xale yoo xam ne yu bari euh, ñu ngi jàpp ci ay affaire am ñu laaj boo xam yow bi nga jógee Petit Gallé ba léegi yaa ngi déggante moom en contact yéen a déggante wala. waaw euh, contact yi mi ngi am waaw mi ngi am. des fois mu woola la wala des fois woo ko ngeen <laughs> waxtaan. Hmm? xam nga moom moom. Hmm. suñu yaay la. Hmm. moo tax waruñu xaar sax moom woo ñu. ñoo ko war a woo. ndax suñu yaay la. suñu xarit la. Euh, nit ku baax la tamit. mais est mi ngi jàpp ci combat bi. waaw euh, mën naa ni que. est-ce que jàpp. comme mi ngi jàpp ci combat bi. waaw <laughs> kon ñu ngi jàppale maanaam ak kii quoi taxaw la comme ni ñuy taxaw comme ni muy taxawee ñu gis ne des fois sax dañuy yekk ci Covid bi ah, am na ñoo xam ne ñu ngi def euh, nu mu ko mun a expliquer di ñëw ñu ay invité ay artistes. ay ñoom Doudou ay ñoom Pape ñu jekk ñu woo leen ñu def benn benn kii noonu comme ni nga ko daan defee Petit gaale waaye. est moom dina jékki-jékki di diggante nelaw la euh, euh, bëgg nañ nga defal ñu lii di la invité. ah waaw waaw euh, peut-être que nag est-ce que doo est-ce que mën-mën bi tolloo na. mën na comme. waaw ah, parce que man moom du ma ne loolu daf ko war a def de force parce que bu ñu xoolee tamit ñoom Doudou walla quelque que soit personnage yi mu fay woo. Mhm. nañ ko xool ci ci ci ci. ci biñ da bi ci compétition bi bokk. Mm-hmm. man bu dee mën na ci loolu laa koy xool. Mm-hmm. boo xoolee foofu ñi fa nekk euh, ñëpp ay jàmbaar lañ parce que nekk nañ ñoo xamante ni bu ñin bi ñu demee ba ci compétition bi dem ba ba war a def compétition bi ku ci nekk da ngay xool fi nga yemoon. Mm-hmm. donc. Euh, est-ce mu nga ñu fàttali fi nga yemoon. man dem naa ba def 4 euh, prime. 4 prime. 4 prime laa def. waaw yàlla yemale ma foofu. Mhm. donc nag damay xam ni que bu loolu amul est-ce mhm. sama doole fi mu yem. moo tax ñeneen ñi ma raw ci ci ci mën-mën euh, ñu war a mën a teew foofu man teew ma fa loolu tax man du ma déranger. Mhm. mais xam naa ni nag euh, comme yaay bu mu nekkoon. ñun bu ñu fa mësaan a nekk yaay la woon. ci ñun te daf ñu yemalewul ñun ñëpp. Mm-hmm. voilà donc man man yaay jooju laa jàpp coloré boobu laa jàpp ba tey mm-hmm. xam naa ni nag tey moom mm-hmm. da ngeen ma mere lool ndax yaram bee neexul may ñi ma war a remercier nag comme ni ko waxee rek li duuf ci euh, nag bi xajul ci cin li donc euh, may jaajëfal nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di gërëm sama yaay parce que nekk na koo xamante ni mhm. yenn saay sax da gis day jaaxle mhm. day jaaxle ndax xam nga doom bu jigéen ak na mu mel mhm. te xam nga milieu showbiz ak na mu mel dafa fiir te xam nga boo paree rek pour nekk ne artiste la donc pareel pour dégg lu ne donc euh, mu nekk koo xamante ni jàpp na ci combat bi bu baax a baax parce que demoon na ba ay nit naan koo bu ko bàyyi mu dem sa doom ji boo ko naree euh, bàyyi mu def li mu bëgg soo moytuwul di ko ñàkk mm-hmm. mu dara demoon ba jaral ma ay jooy mm-hmm. ba lu nekk def naa ko pour rekk sama yaay mën ma comprendre mm-hmm. ndaxte xam nga nit ñëpp yemuñu looloo waral sama premier single ma tuddee ko duma ñoom mhm. ñi ñëpp yemuñu ku nekk ak ni nga bëgg a mel mhm. donc euh, bi mu demee nag ba xam kan mooy doomam mhm. ci la ma ne man terew ma la nga def koy li nga bëgg waaye demal rek ni bul mës fàtte fi nga bokk bul mës fàtte ki nga doon ndaxte yenn saay sax ñu waxal nit loo xamante ni defu ko te xam nga jigéen amul lu dul boppam. Mhm. donc man mii sa yaay loolu rek laa lay laa laa bëgg nga def ko sa xel lu mënti am ci àddina. Mhm. bul mës a fàtte ki nga doon fi nga bokk ak jigéen ci nga doon. bu sama xel demee sama yaay rek damay damay naan ba tey. Mhm. ak lépp lu am ci àddina man lu ma am rekk bëgg naa ko bokk ak sama yaay mhm. moo tax mu nekk koo xamante ni maa ngi koy ñaanal yàlla na ma yàlla may lépp lu may mën ci am mhm. mu lew ma ma am ko bokk ko ak moom sama yaay ji mhm. may nuyu nag ñépp ñi nga xamante ni jàppoon nañ ci combat bi ndax metti woon na torop torop torop sama manager sama producteur top modèle yi ñoom ñëpp ñëpp ku ci nekk ci ñoom da ngay gis ñoo xam ne dañuy dem ba yenn heure yi mu leer la ni que moment bi waroon nañ waroon nañ nekk seen kër mais dañ fay jóge ñëw ne ma faatu jóge ñu dem liggéey te bu leen neexoon mënoon nañ ci bañ fekk ndax yoruguma tey dërëm boo xam ne mën naa leen ko mën naa leen fay fay boo xamante ni tolloo nag noonu mm-hmm. ma leen di ñaanal yal na leen yàlla fay seen xol mm-hmm. sama bàjjen bi ma nekkal fii sama maam waa dakaar sama mbokk yi nekk dakaar yëpp ñoom tamit ndeysaan loolu lañ ci sonnee. Mhm. sama maam bi nekk ci amalaay mhm. sama bàjjen bi nekk ci euh,